dafa yaatoo yaatu baree bari ay mbir waaye kasit bi daal moom li ëpp ci li la yitteel mel na ne waxtaane nañu ko ci biir bu baax a baax bu leer kon na ko jàpp bu baax a baax yi nga xam ne nag bépp jullit rawante na bépp bi war na koo xam te gànnaayoo ko mooy mu wóor ko ne jëpp jëf joo xam ne mi ngi koy jëf rekk yaar mooy tax ñu nangu ko ba ci jëkk mooy yéene ca sell muy yàllay kese kese tax mu di ko def ñaareel ba mooy mu dëppoonteeg ni nga xam ne moom la ko shariha rëdde yaar yi moom bu tasee ci jëf rek nga xam ne kay jëf yàlla yi kese kese moo ko tax di jëf dara raxu ca te it defe na ko nanga xam ne moom la ko shariha rëdde kon yaakaar nañu ne ak nangu rekk rekk moo cay topp kon nag moom mi nga xam ne moo fas yéene aji na sellal yéeneem yàllay kese kese kese tax koo dem di aji la ca topp nag mooy mu fexe ba alal ji nga xam ne moom lay ajee ji ak lépp lu muy jëfandikoo ci aj gi lépp nekk lu lew bu wér a wér ndax ku aje lu araam jëmi aj ga moom dana wér kenn du ko wax ne ko aji waatal waaye nag aj ga deesu ko nangu bu waxee labbay ko ñu ne ko déet yow sa labbay ka dañu la koy delloo te itam li ñu wax laajkat lu mata moytu la war naa ràññee bu baax ne Islam day aaye laaj nit ñi seen alal te saña laaj dal day loru ci lu mu lek mbaa lu mu sol mbaa leneen lu mënta ñàkk loo xam ne daal amu ca menn menn pexe te loola it mënta ñàkk ci mu dund ku agu foofu rek du saña laaj lu ñu jekki-jekki jox ko ko nag moom nga xam ne ko wala wu ci ak bëggam itam ba ñu jox ko ko loola lew na mën na ko nangu lu may nag ka koy jox kat daa am lu mu jortu ci moom ba tax mu di ko jox te moom mi ñuy jox xam na ne loolee nekkul ci moom su boobaa kon ba tey bu sañ a nangu la ca topp nag mooy jaamu yàlla gii nga xam ne moom lay jëm muy aj ak xumra lépp lu ci aju rek ci wàllu xam-xamu lislaam na ko xam bu baax a baax ba mu leer ko bala mu caa dugg mbaa boog lu mu toll bala ko song di ko def mu laaj ko ba xam ko ndax bu ñu nee sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen mooy rekk lépp lu mu tollu ci mbirum diineem ak mbirum àddunaam mu xam ko bala caa dugg la ca topp nag mooy mu lijjanti digganteem ak doomi aadama yi bala moo dem rawante na loo xam ne da koo seq ak nit te binduñu ko fenn sàkkaluñ koy seere nga xam ne bu demee te xamul yàlla dana ko moomum déet loolee fa lay doxe boo tuut bul jënti ko ba teyit it na dénkaane gannaawam bu baax lu mu bëgg rek bu génnee àdduna ñu defal ko ko mu wax ko sàkkal koy seere ñu leeral ko bu baax a baax ba tey am na ay bayit yoo xam ne Serigne Touba moo ko def def ko yóbbalu aji Makka ak siyaari Madina nga xam ne ñaan ku ko yore foofee loo fa bëgg rek yàlla defal la ko na fexe ba yóbbaale ko ndax moom mënees na ko def ci wenn kayit rek bariwul mi ngi tàmbalee madhu nabiyil muntaqa zaadun ilaa bayti ilaahi naasi waahibil ilaa na fexe ba yóbbaale ñaan gi nga xam ne sëriñ Touba moo ko def ñu koy ñaan ci bisub arafa mu tàmbalee xamdan liman akmala yawma arafa diina nabiyil mustafa wa sharafa na fexe ba am ko moom it bu demee ba arafa mu fexe ba jàng ko foofe ñaane ko fa ba tey mu farlu ci bu dee waaj ak bu nekkee ci yoon wi ak bu nekkee foofee lu coono yi metti metti metti mu fexe ba genn julli farata bañ koo raw ndax julli moo gën a màgg ci lislaam gannaaw gëm yàlla nee nañu bu ñu guddi gi moy guddi fukkel nga xam ne fa jant ba soye bu dee ci yoonu malik balaa fajara fenk war nga fi taxaw arafa ba nga xam ne ci bop raw na la bu déwén nga fay si ko guddi googu nag boo yeexe woon a julli ba nga xamé ne fajar lee mu fenk dafa kii taxaw goo arafa nga xam bo taxawé arafa gee la bo julé gee arafa raw la ko it nee nañu da ngay julli gee la bu déwén nga fay si ko waxtaan wi nag dañu ko bëgg a teg ci yoonu al imaamu malik radiallahu taala an ndax sëriñ tuubaa dafa wax ne yéen mboolem taalibe yi dénk naa leen ngeen jàpp ci la ci yoonu al imaamu malik teg ca ne bu ngeen ma gisee sax may def lu wuuteeg loola na ngeen xam ne loola sama jagle la bu ma ca fekk daal di daaneele alaykum bil malikiyati fa innaha mutaharatun munawwara te itam cheikh abdul ahad mu baax mii nuy fàttaliku ci jamono yii yal na ko yàlla dolli ngërëm ak leer daa waxoon ne ab taalibe nekk fenn di fa kenn ak nekk fa di junni ñoo war a yem ci moom rekk dafa war a wéyee ndigalul sëriñ bi rekk kon nag noo ngi tàmbali li ñuy njëkk wax nag mooy lan mooy àtteb aj ak ci lislaam loolu moom yomb naa gàttal aj da ngay wax ne farata la ci koo xam ne kàllafe na te man ko te amul ngant moo xam góor la moo xam jigéen la farata la ci moom mu aji màkk benn yoon bu xasee aj benn yoon nag ba farataam wàcc ko sañ na at mu ne mu dellu aji ndax yokku tuyaaba rekk waaye yoon wu njëkk rekk moo cay farata umra itam atte mooy da ngay wax ne umra day sunna su dëgër la ci ku ko man te amul ngànt bu xasee umra benn yoon nag sunna sa jeex na mën na nag at mu ne mu dellu umra jiwaat ndax bëgg a yokku tuyaaba te bu ko mënee def ci weeru ramadaan lay gën ndax yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa daa wax ne tuyaabay umra ci biir weeru koor day tollu ne tuyaabay aj nga xam ne kon umra ci biir yoru koor daal ku ko def am tuyaabay aj màkka bu ñu nee nag góor ak jigéen koo ci xam ne mën na aji te amul ngànt rekk mu daal di koy war da nga cay boole ne bu dee jigéen moom dañuy farataal ci moom mu ànd akub bu góor araamanteem bu góor mooy góor goo xam ne xaraam na ci ñoom ñaar ñu sëy loolu nag dañ koo diisal lool ci boo dee xool ni ko addis yi indee waaye nag bu dee ci yoonu Maalik moom def nañ ca jàppandal ci bu fekkee jigéen ji ci boppam wóolu nañu ko am na itam ay àndandoo yoo xam ne wóolu nañu leen kon bu amul ab araamanteem itam du ca wàññi dara yow mbokk mi nga xam ne yaa bëgg a aji mbaa nga bëgg a ji na nga xam ne aj màkka day am na yeenti farata bu la neexee tudde ko yeenti ponk farata mbaa ponk nag boo ko déggee mooy loo xam ne benn rekk bu ca manqué la nga doon def day mel ne defoo ko defoo dara dara bu ko defee nag boo weesoo loolu nga tuddee ay farata mbaa ay ponk am na itam lu ñu tuddee ay warigar warigar mooy yi nga xam ne boo ci bàyyee benn bu tey aj ga baax waaye nag am na alamaan bu ñu lay teg loolu moo wutale farata ak warugar soo bëggee wàññi nag faratay aj mbaa ay ponkam bu la neexee da ngay wax ne ñeent la ba ci jëkk mooy armal daan wax lan mooy armal la ca topp mooy dox safa marwa la ko ñetteel mooy taxaw arafa la ko ñeenteel nag mooy tawaaful ifaada yent yi moom benn ku ci manqué rek kooka na ko wóor ne moo ko ajut ñooyam umra itam moo ko aj ñoo bokkle ñetti ponk yi te benn bi nag moom amu ko umra am na armal muy benn ponk am na wër kaaba muy ñaar am na dox safa ak muy ñett waaye nag amut taxaw arafa kon nag limal naa la faratay aj yi mbaa nga ne ay ponkam limal naa la itam yi umra ba mu leer yow mbokk mi aji yi nga xam ne itam kat daa am yoo xam ne boo xasee armal ba ba nga yeewiku dañu la koy aaye daañu la wax nag kañ nga yewiku yewiku mooy sañ def ya la aaye woon yewiku boobu yaari yewiku la yewiku bu ndaw ak bu mag daañu la wax yaari yëpp danaa leeral bu baax itam yooyu nga xam ne boo xasee armal dañu la koy aaye ndax nga mën koo moytu bu baax a baax kon nii laa bëgg tërale li des ci waxtaan wi mooy damay njëkk wax ku bëgg aj nooy tegalee sag aj nga xam ne loo def rek xam la cay tegu xam la cay tegu ba a ngay noppi su ko defee ma dal di cay sësale yi nga xam ne boo xasee armal dañu la koy aaye ndax nga mën koo xàmmiku ba mën koo moytu ni ma ko waxe woon léegi ma door caa teg nag wàññi benn benn warigar yi nga xam ne boo ci bàyyee benn mbaalu ëpp benn alamaan daal di lay war alamaan bi nag naa wax léegi lu muy doon ba su mu tuddatee alamaan rekk nga xam ne moo ma tax di wax alamaan bi day doon gëléem mbaa nag mbaa xar mbaa bëy ñu rendi ko mbaa ñu loj ko fa nga xam ne fa la ko war a rendee mbaa fa ko war a waje bismillah maa ngi tàmbali yow mi nga xam ne yaa bëgg aj xamal ne li njëkk ci aj mooy armal te armal boo ko déggee rek mooy yéene fas ci sa xol loo yéene dogu ci rek moo xam aj la mbaa xumra la xamal ne kon armal nga loola kon jàppal ne boo yéenee ci sa xol dogu ci def aj rek armal nga aj boo yéene itam xumra ci sa xol kon armal nga xumra danaa bu xasee xam ne nag armal moom mooy yéene dana ànd ak sax lu mel ni wax labbayka ak yeneen ak yooyu waaye daal moom yéene ci xol bi rek mooy armal xamal ni yéene jooju ñetti xaaj la na ko ràññalee bu baax benn ba mooy yéene aju kese def ko itam ba àggal moo xam gannaaw ba danga ca teg omra walla déet loolu moo tudd al ifraad te loolu moom la yoonu Maalik gën a taamu ñaareel ba moo di nga yéeneendoo aj ak xumra benn yoon loolu moo tudd xiraan xiraan mooy lëkkale te mooy boole ba te itam nag bu fekkee da ngaa njëkk a kese laata ay ponkam di mat nga yéene aj teg ca loolu ba tey xiraan la dañ koy wooye irdaaf bi leen ñetteel te moo ci des mooy ak tamattu tamattu nag mooy nga yéene umra kese def ko ba àggal way batiku daal aj teg ca kon ngir gàttal dangay wax ne al ifraad mooy yéene aju kese def ko ba mu àgg moom la yoonu Maalik gën a taamu waaye dañuy sopp nag boo noppee nga teg ca umra alxiraan mooy nga yéeneendoo benn yoon aj ak xumra wala boog nga yéene xumra kese laata teg ca aj di wees nga yéene aj teg ca loolu nag xiraan la waaye am na turu boppam ñu koy wooye irdaaf bi ci mujj nag mooy at tamattu yéene xumra kese def ko ba àggal wëlbatiku nag kon ñett yaa ko jàppal nag ne yaar yi ma njëkk wax muy al ifraad aju kese def ko mu àgg ak ba ma ca teg muy alxiraan mooy yéeneen doo yaar yépp jàppal ne yéene yow mooy wute waaye bu àggee ci jëfe ja ñooyam képp képp képp ndax xam nga ne aj ci boppam am na wër kaaba amna dox safa ak marwa umra ci boppam it amna wër kaaba amna dox safa ak marwa léegi nak bu fekke da nga yéene ndo yar yépp xamal ne bu tax kenn ku ni nga beral ko waru boppam mbaa dox boppam da ngay wër rek ben waru kaaba ñom ñaar ñu bokk ko nga dox safa ak marwa ben dox safa ak marwa ñom ñaar ñëpp ñu bokk ko nga xamne kon yene aju kese ak yene ndoo ñaar ñepp ñoo bokk jenn jenn jëf fa ñi wote nak moy bo yene lo yaar yëpp yaar yëpp ngay am waye nak addu dalay ne negam bokko ci ñu dëkk ci makka la ko wax bo yene aju kese nak mom aju kese ngay am motax wa mal di sopp bo aju kese ga nga xumra kon nag léegi dama lay njëkk xamal rek ni ngay tegalee sag aj bu fekkee da ngaa yéene aju kese ak boo yéene aj ak xumra benn yoon ndax nee naa la ñoom ñaar ñoo bokk jenn jenn jëf su loolu àggee nag ma door cee teg bu fekkee da ngaa def ak tamatuhu mooy yéene xumra kese ba àggal door caa teg aj su boobaa lan moo ko wutaleeg yaar yi nga weesu loolu laay mujj ci tegale bi kon nag yow ajkat bi boo toppee li yoonu Maalik gën a taamu te mooy yéene aju kese wala nga yéene yaar yëpp benn yoon nee naa la ñoo ñaar ñoo bokk jëf kon day boo àggee ci béréb ba nga xam ne fa la armale ñu koy tuddee miiqaat ndaxte way man di bayiko ci goxi aduna bi rek amna na ko sakal ne ko fofa ngay armale kon so agge fofa li ngay ñu kalif moy sangu ci nga yu melne di ñi sangu janaba day tam man nga dindi ci saw yaram mo ci bëgg dindi ci wat ay kawar ba nak des sabab sa bopp sa bopp nona, saye ba bàyyi bu ci watu mbaa jembu def loolu lañu la digal mu wat ba jembu gannaaw bo sangoo nag bu dee koy ay sol yére yu ñu ñaw ba mëna wër ak ciir kon say bo mu dal di wut teraxlaay akuk làmbaay ak dalli lu ko neex lay sol mëna sol ñu ñaw du dara ganaw bu solo ba agal nag te waxtu wo tombeeg waxtu julli farata mu dal julli farata bu selmal dal di fas yene ji bu fekke itam wut ak waxtu julli farata waaye aaye wuñu naafila mu dal julli ñaari rakka bu selmal dal di fas yene ji ñaari rakka yi lo jang rek mu bax waye bu de ci yoonu malik dañuy tamu rakka bu jëkk ganaw fatiha qul yaa ayyuhal kaafiroon rakkab ñaareel gannaaw fatiha qul huwallaahu ahad gannaaw bu sëlmalee ci julli ga moo xam farata la moo xam naafila la nga daal fas yéene ji te mooy armal bu di aju kese na wax ci xelam ne sunu boroom fas naa yéene aj si néeg bii yàlla nga ma ko yombalal te nangul ma ko bu fekkee daa bëgg a boole yaar yëpp nag aj ak kon na ci xol bi wax ci xelam ne sunu boroom yéene naa aj ak xumra bii yàlla nag ma ko yombalal te nangul ma ko loolu mooy armal gi su fas yéene ji ba àggal nag na daal di tàmbalee wax labbayka ndax labbayka jooju daa bokk ci warigar yi buñ ci àggee daanu ko wàññi labbayka nii la koy waxee day wax labbayka allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wa niamata laka wal mulk laa sharika lak noonu lañ koy waxee dañuy taamu nag mu digg doomu ci na mu yëkkatee kàddoom ca namu koy barile kaddu ga bumbu, mu ko lool lool ba muy gaaw a xëx gaaw a sonn waaye tam, bu mu suufe ba rek bu sonnee itam na noppulu bu amee lu ko dog niki ki lekk wala naan wala nelaw wala julli wala leneen bu loola jeexee mu dellu yeesalaat la bayka li ma waxoon nag ne day njëkka a sangu balaa armal cangaay loolee sunna la su ko bàyyee du tee armal ga wér la ma ci armal gi topp ak julli moo xam farata la moo xam naafila la ba tey loola daa gën waaye nag su fekkee yooyu jamono tolloowut ak waxtu julli farata du fekk itam ñu aaye ku naafila kon sayaboo rekk mu armal du tee armal ga wér kon nak lima waxagun dal moy armal na mu ci tambalé wax labbayka tax itam kat bu armalé fa sasa na ci susalé wax gi ji ndax kat bu armalé lu yag rek tu waxut alaman dal di koy bay labbayka ji na koy wax diko wax diko wax nak ba aksi makkah ba agsi ci kaaba ga nga xam ne wër rekk moo des su agsee màkka nag ba nga xam ne léegi wér rekk moo des nag mu door bàyyi la bayka ji nag ba wër ba àggal ba dox safaak maroo ba àggal door a salaat la bayka ji waaye su agsee nag moom bay wër day bàyyi la bayka ji ci kaaba gi li ngay njëkk a def moo di ko wërub nuyoo wër bii nag moom la ñuy wooyee wërub nuyoo wërub ku dikk màkka di nuyu kaaba gi ñetti sart yi bu ci dajee daal nga xam ne yow yaa nga armale ci miixa te sa digganteeg taxaw arafa xatut tey defoo irdaaf ci bi nga ñëwee ci xorom ji kon yow war ngaa def wër bii ñu wërub nuyoo ca dox safa ak marwa bala ngaa taxaw arafa ak si nga màkka war ngaa taxaw temb ci kon wër wër bi nga xam ni mooy wërub nuyoo bi jàppal nag ne wër moom balaa baax faaw nga ànd akuk laab te yaari laab yépp ngay àndal genn laab gi mooy bañ a amee sobe soo xam ne mën ngaa tàggoog moom ñaareel bi mooy boo amee cangaayul farata nga sangu bu la jàpp waree nga jàpp bu sa farata doonee tiim nga tiim loolu mooy yaari laab yi bul fàtte itam ne ni nga xam ne moom ngay sànge saw yaram boo dee julli noonu nga war a sànge saw yaram boo dee wër kaaba kon li ñuy wax awra dañ war koo sàng ci julli ba tey kuy wër kaaba da koo war a sàng bul fàtte itam ne wër kaaba balaa baax danga koo doxee wetu càmmooñ te bañ koo ndeyjooru boo ko càmmooñoo rek lay baax waaye boo ko ndeyjooroo ci wër ga du baax kon nag boo nee yilib dangay daal di jawali doj wa ñuy tudde alxajarul aswad doj wa ca kaaba ga su fekkee mën nga koo fóon ci sa gimiñ danga koy fóon ci sa gimiñ fekkee mënoo koo fóon ci sa gimiñ nga raay ko ak sa loxo fab sa loxo teg sa gimiñ te bañ a loxo ba su fekkee nag xat na ba mënoo loolu nga toll fa nga toll rek mépp sëg fóon daal di wax allah akbar tàmbalee foofu sa wër na xam ne juróom-yaari yoon la te yoon wu ne foofu lay tàmbalee nga xam ne boo doxee ba ak si foofu rek mu di aw yoon boo tàmbalee foofu wuti li ñu wax ak ruknu al yamaani bala nga àgg ca moom sopp nañ nga wax rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban so agge ci arukul yamani mom bu fekke man nga ko fon ci sa gimiñ itam boko fon ci sa gimiñ dang koy ray rek ci sa loxo fab sa loxo tek ci sa te bañ ko moju nga jall nak ba fa nga tambale won wërga bi yenn yoon yoon wu nak saa yoo tolloog doj wi te mën koo fóon mbaa nga mën koo raay nga def loola su fekkee mënoo koo fóon mënoo koo raay nga mépp sag fóon te wax allah akubar jàll ba juróom-yaar yoon yi mat ndax yoon wu njëkk ba moom soo mënee fóon doj wi mbaa nga raay ko loola sunna lay doon yoon ya ca des nag moom soo ko mënee fóon mbaa nga raay ko nga def ko lu ñu sopp lay doon bul fàtte itam ni war bii ñu tuddee tawaaful xudóom warub nuyoo am na yaar yoo xam ne dañu koy sàkku ci góor te deesu ko sàkku ci jigéen benn ba mooy yett yoon yu njëkk ya su yaatoo ba nga mën a lagg lagg du war a sori kel wala ñukk su yaatoo ba nga mën a lagg yett yoon yu njëkk ya bu dee góor sunna la mu lagg ko ñaareel ba mooy wokk mbaggum ndeyjooram bañ koo muur yooyu yaar dañ koy sàkku ci góor te dee su ko sàkku ci jigéen boo xasee weesu nag wër bii nga xam ne mooy wërub néew bi soo àggee ca tawaaful ifaada xamal ne yow góor gi lagg bi ñu la digaloon fii bu ñu la ko digal foofa wokk bi la waxoon nga wax sa mbaggum ndeyjoor itam du ñu la ko digal foofa kon nag yaa ngi ci kaaba gi wër nga ko ni ma waxee juróom-yaari yoon da dem nag fa gannaaw maqaamu Ibrahim nga julli fa ñaari rakk yoo xam ne ñu koy tuddee ñaari rakk yi wër ndax kat jàppal ne saa yoo xam ne wëru kaaba ga dafa nekk wër gu war kon kat julli ñaari rakk yooyee ca gannaaw wër ga moom it waru gar lay doon nga xam ne foofu foofee ñu wax gannaaw maqaamu Ibrahim bu xate xatee itam nga jullee ñaari rakk yi feneen rek waaye julli ga ñaari rakk yi moom du mën a ñàkk. léegi nag wër nga julli nga ñaar rakk yooyu nga daal génn nag wuti safa ak marwa fas yéenee dox seen diggante waaye dañoo bëgg nag bala ngaa wuti safa nga jaaraat ca kaaba ga fóonaat dojoo ndegam mën nga koo fóon mbaa nga raay ko ndegam mënoo koo fóon mbaa nga tolloog moom mépp sag fóon ndegam mënoo fóon mënoo raay door a jàll nag doxi safa marwa bo génnee itam foofu ci kaaba gi wuti safa nga wax ne abda'u bima bada allahu bih inna safa wal marwata min shahairillah su àggee ci safa doj la mo mënee yéeg ba ca kaw nga taxaw jàkkaarloog kaaba gi ñaan door a wàcc loola sunna la jëm yéeg sunna la taxaw ga ca kaw itam kaaba gi ñaan ba sunna la ko nag boo wàccee ci safa nga wéy na wuti almarwa moom it aw doj la waaye nag diggante safa ak marwa dafa am lu ñuy wax diggante ñaari poto yoo xam ne ñaari poto yu nëtëx la boo dee góor boo àggee ci diggante boobu diggante ñaari poto yooyu ñoo bëgg nga daw gaaw ba weesu ko door a doxewaat na nga doon doxe bu dee jigéen nag moom na doxe rek nam doon doxe waaye bu dee góor moom diggante ñaari poto yooyu moom dañoo bëgg saa yoo ca tolloo rek nga gaaw ba weesu ko door a doxewaat na nga doon doxe soo àggee ca marwa aw doj la dañoo bëgg moom it nga yéeg ca kaw jàkkaarloo kaaba gi ñaan door a wàcc nga xam ne yéeg ak taxaw ga ca kaw ñaan lu ci nekk sunna la xam nga nag léegi kon bàyyi ko nga safaa ñëw nga marwa dañuy jàpp ne loolu aw yoon la soo bàyyi ko marwa delluwaat safaa muy yoonu ñaareel boo bàyyi ko waatee safaa ñëw marwa yoonu ñetteel jàppal ne kon dem bu ne aw yoon la dellu bu ne aw yoon la nga def ko nag ba muy juróom yaari yoon jàppal nag ne ndox safaak marwa moom boo ci àndu takuk laab it du ko tee baax waaye nag bëgg nañ ca lool laab ga na nga ca góorgóorlu ba ànd caakuk laab ndax bariñ sa tuyaaba nga bañ fàtte itam ne boo dee wër kaaba ak boy dox safa ak marwa bokku na ci sunna yi lol lol nga bari la ñaan ñaan gi nak bu fekke la yonent bi daan ñaané sallallahu alayhi wa alihi wasallam ba gaay bax yi man nga seen ñaan yoyé ta xam la muy tekki boole ci kon daleen tamu nga ñaané ñaan yoyé door caa doli la nga bëggal sa bop su fekke nak ñaan yoyé man nga ko tudd ni ci baati arab yi kon bo gisee ku la ko mën tekkil ba wax la maanaaye ya nga door caa ñaané moo gën su fekkee nag mën ngaa tudd baat ya waaye taxul na nga xam li muy tekki kon soo ko bëggee tudd ngir barkeelu rek baax na waaye na nga ca boole bari la ñaan ci sa làmmiñu bopp sa digganteeg sa borom la nga nàmp rek ndax loola ci ngay gën a mën a waxe la nga bëgg kon nag loo mën di ñaane ci ñaan yi ñu baax ñi tam na nga ci baril rek ñaane ci sa làmmiñu bopp ndax li nga bëgg dëgg-dëgg salaam ci bop nga koy gëna mëna ñaané légui nak bo xasse dox safa ak maro ba agal kon da ngay ye salat wax ga nga daan wax labbayka na xam nga bi nga agsee ba tambalé wër da nga bàyyi woon labbayka ji légui delu ko ye di diko wax rek bo sonné noppulu bu amé la dog bu loola jeexee nga delu ko salat bañu ne tay ji la bisu juroom ñettel ci weeru tabaski bis boobu day moom sopp nañ nga bàyyi koo màkka dem minan waaye mbokk mi diir yaa ngi màkka soo mënee farlu ci jullee ca kaaba ga nga ci farlu bu baax a baax ndax tuyaaba ju rëy ja nga xam ne moo ca nekk kon nag mbokk mi léegi maa ngi toll ci la bisub juróom-ñetteel ci weeru tabaski ñu sopp nag nga bàyyi màkka minan minan dañoo bëgg nga fexe ba jullee si fa tisbaar daal toog jullee fa takkusaan timis gee fanaan ba suba nga xëyee foofa nag wuti arafa ndax bis boobee mooy nekk bisub juróom-ñeenteel ca la ñuy dem arafa arafa nag dangay fexe ba tisbaar fekk la fa te fàtte la baykat ji booba tey saa yoo sonne rek noppalu soo noppaloo jëlaat ko ba ñëw nag ba ci jullikaayu arafa boobee bu fekkee da ngaa topp yoonu Maalik nag moom boo agsee ci jullikaayu arafa te fekk tisbaar jot boole ci fa ngay bàyyee la béykat ci aj gi doo ko waxati mukk mukk waaye nag saa yoo ñëwee arafa te fekk bisub juróom-ñeenteel boobu agsee gut mbaa bi bi agsi na waaye da ngaa teel a ñëw arafa te tisbaar jotagut du tee da ngay la béykat rek moom moom daal ba kare tisbaar jot boo ñëwee arafa it da nga wéy ci la béykat ji. waaye boo toppee yoonu Maalik moom. boo ñëwee ba arafa di wax la bayk ba tisbaar jot foofa nga koy bàyyee doo ko waxati mukk mukk am na ñeneen ñoo xam ne nag loolu bokkut seen yoon daañ koy wax ba ci ëllëg sa ba ñu bisu fukkeel ba bañ xëy si minan door a bàyyi kon nag mbokk mi wax naa bi nga ñëwee minan bisu juróom-ñetteel fanaan fa xëyee fa ñëw arafa bisu juróom-ñeenteel kon nag bu tisbaaree ilimaan bi dana fa xutba ñaari xutba bu noppee ñaari xutba ñi dana jiite mbooloo mi tisbaar ak takkusaan dañu leen di boole te wàññi leen dañu leen di boole mooy bu ñu jullee tisbaar rek tekki takkusaan fa saasa duñu xaar takkusaan jot dañu leen di wàññi mooy kenn ku ci nekk dañ koy julli rek ñaari rakka dee su ko julli ñeent gannaaw ba ñu xutbaa nag ba julli julli ba noppi muy tisbaar takkusaan taxaw googee ñu taxaw njëkk jant bi sox foofee ci arafa bu dee ci yoonu Maalik dañ koo jàppe warugar nga xam ne bu fekkee bàyyi nga ko itam alamaan rek moo lay war waaye du tee aj gi baax gannaaw ko jant ba soye nak ci bis bobé nga xamné bisu bisub ñentel la won nga xam dugg nga ci guddi fukkel gi bu jant bi soxee dal nga tàmbalee ca fa jant ba soxe balaa fajar fenk mom nga fexé ba taxaw fa arafa mu mu gatt gatt ndax kat bu dé ci yoon maali dañu japp né bu jant bi soxee la fa dale digganteem ak fajar di fenk bu fekkee taxawoo fa arafa rek acc raw na la ba deen nga dellu si fay si ko kon nag mbokk mi taxaw nga arafa ba jant bi so kon bu bi bi soxee dañ fay taxaw as ndiir nag door faa bàyyi ko ñëw fa ñuy wax musdalifa nga xam timis duñ ko jullee foofu ci arafa dañuy ñëw musdalifa jullee fa timis ak gee dal leen di boole te wàññi gee ga boole gi mooy buñ jullee timis daal di julli gee fa wañi gi nak mom ge rek la wañi waye timis kenn du ko wañi ge la julli ñaar rak loola modi di wàññeem foofee ca mustalifa nak nga wacc fa waru gar la boo yàkkamtee ba ba nga bayiko ko ah fa da nga romb rek mustalifa jall waccu fa kon bayi nga waru gar te da nga wara fay alaman la gën nak moy mustalifa nga wacc fa ba fanan fa ba julli suba bo julli suba nak nga dem fa ñuy wax almashharul xaraam taxaw fa di ñaan di ñaan ba nga xam ne jant baa ngi bëgg a fenk nga fore foofee nag ca musdalifa itam juróom-yaari xeer yoo xam ne boo àggee minan moom ngay sànni nga xam ne kon boo taxawee foofee di ñaan ca almashharul xaraam ba jant bi jege fenk da ngay daal di bàyyi koo foofu nag wut siwaat minan fekk fore nga juróom-yaari xeer foofee ca musdalifa su agsee minan nag li ngay njëkk njëkk a def rek mooy sànni jamra ji ñuy wax xaqaba boo déggee jamra mooy bërëb bu ñuy sànni ay xeer juróom yaari xeer ya nga fore woon musdalifa boo dikkee moom ngay sànni ca sànnikaay ba ñu tuddee xaqaba te xeer wu ne boo koy sànni nga wax allahu akbar bu fekkee fàtte woon nga fore juróom yaari xeer ya foofee ca musdalifa kon sa yeboo fore ko rek foofu ci minan al koy sànni foofu ñu ko war a sànni gannaaw boo sànnee jamray aqaba moo xam góor nga moo xam jigéen nga la ca topp mooy soo amee lu ñuy rendi nga rendi ko boo amee lu ñuy loj nga loj ko la ca topp it mooy bu dee góor mu daal watu mbaa mu jemp watu ga nag moo gën jemp ga bu dee jigéen nag moom day jemp rek waaye du sañ watu nel bu set ayo ko fee ñëw mi nak nag ba sànni jamray aqaba ji ba nopi xamal ne kon am nga yewiku bu ndaw yewiku bu ndaw moy yeñu la ayé won gis armal yépp yépp sañ nga ko bam dess des ben bu moy jotté jote jigen jigéen bu moy rebb ñettel bu moy lat ko lañ batay dañ koy sip ag ci aram waye dañ koy sip batay kon nak mbokk mi ñëw nañ ba ci bisub fukkeel bi xëy si nga minan sànni nga jamray aqaba bu fekkee am nga looy rendi mbaa looy loj def nga ko bu dee góor watu na mbaa mu jemp bu dee jigéen jemp na ba ca des nag mooy sangu ba set sol sa yére yana soog ndax bu dee góor sax aayay tuñu ko yére yi ñu ñaw niñ ko waxee woon léegi ci ko bi kon sangu ba set sol sa yére nag delluwaat màkka dem defi tawaaful ifaada moo ci topp kon nag léegi ñëwal màkka nag defi tawaaful ifaada wër boobu nga xam ne farata la wala nga ne tonk la nga xam ne li fekk defoo ko doo yooyu ko mukk mukk aj gi moom du mat nga xam ne bu dee jigéen te fekk mu gis deret tam day bàyyi ba deret ji jeex ba mu laab mu door a mën a ñëw wër rek waaye lu yàgg-yàgg bu doon déwén it du mën a ñibbisi te deful wër boobule feebee mom jigen bu xamé garab go xam suko nané dana té mu gis deret te sét nañ ba du wañi dara ci wiru yaramam kon man na nan garab gën ndax mu bañu gis deret bala mu koy gàllankoor ci wër kaaba gogulé so ñëwé mak nak di def tawaful ifada xamal né mok na nga wëri won bu ñëk ñoo bok aw melo jëw yaari yoon lay doon bu jëw yaari yoon yi matee nga dem fa gannaaw maqaam Ibrahim julli fa ñaari rakka waaye nag bul fàtte ne nee naa woon lagg ba ñu waxan góor ci yetti yoon yu njëkk ya ci warub nuyoo ba ak wokk mbaggum ndeyjoor ma amut fii léegi nag bu fekkee ne moom ki ma wax la nga xam ne daa yéene woon aju kese mbaa mu yéene woon aj ak xumra boole leen kon bu xasee def tawaaful ifaada bii ba àggal ci la yeewi ko yoy ko gu magga moy kenn ayetu ko dara dara jote gor jigen man nako ko bu génnee urum ji man nako yakko konak lalu lañ itam kenn siba tuko kon nak lolu mo tuddu yoy ko bu mag mu dess nak ki nga dafa def tamatto manam yene umra kese def ko ba mu àgg batiku yene acc koku mom bu ñëwee ba def tawaaful ifaada ba àggal day war a dem doxi safaak marwa bu doxee safaak marwa ba àggal nag lay door a yewiku bul fàtte nag fi ma toll fi ma toll mooy noo ngi ci bisu fukkeel bi bàyyi ko nga minan ñëw màkka ba def tawaaful ifaada ba noppi li ci topp nag mooy dellul minan fexe ba jant ba soye fa ndax kat yaari guddi yi nga xam ne moo ci topp mel tay ci moy waxtane nga xam ne bisub dibéer la war nga fexe ba guddik altene gi nga fanan ko fofé ci minan guddi ga ci top itam nga fanan ko fofé ci minan lolu boko baye alaman war la ndax fanan mën ta ñak tay ci moy waxtane bisub la soo gontee fanaani minan bu bët set di altene bu tisbaar jotee na nga for ci ay lu mat ñaar fuk ak ben ndax dafa am yetti jamra maanaam yetti sànnikaay yoo xam ne fu ca nekk da nga fay sànni juróom yaari xeer te it dafa am sànnikaay bu jëkk te mooy bi sës ci jàkkay minan ak boo xam ne moo ci digg ba ñu koy wax jamray ñaareel may bo xamne moy ñettel ba te moy jamray haqa ba moomee nga sànni won mom kesse ba nga ñëwee minam ak bo xamne moy ñettel ba te moy jamray haqa ba moomee nga sànni won mom kesse ba nga ñëwee minan ah, bu nga xey see minan ci bisu fukkel ba ke mo tuddu haqa ba te yi moom mooy mujj yetti jamray yi faaw nga tegalee ku nii ñu tegaloo jikki bi jikk tek ci ba ca topp mujj ba mujj soko deful du baax kenn ku ne nga fay sànni juroom yaari xéer cosaan wu ne bokoy koy nga wax allah akbar te jamra bu jëkk bi boko sanne ba agal ñu sopp nga ñaan fa ñaan gu yagg bala nga jall ci ba ca top bo dewe ci bu ñaari ba tam boko sanne bu nopi nga ñaan fa ñaan gu yagg bala nga jall ci bu ci mujj bu ci mujj muy ba mom boko sanne sopp nga taxaw fay ñaan ngay del war rek fa sab dal kon fana nga genn guddi sanni nga jamra yi benn bu guddi ka ca top nak dee ni ma misaale nga xam ne mooy doon talaata boo ko fanaanee fanaan nga guddik ñaareel boo yendoo ba cëgub talaata nag ba defalati na nga defoon for ci ay xeer ñaar fukk ak benn yetti sànnikaay yee fu ne nga sànniwaat fa juróom-ñaari xeer naa ko waxe woon kon léegi fanaan nga ñaari guddi sànni nga ñaari bëccëg bu la soobee nga daal di bàyyi ko minam ndegam da ngaa yàkkamti bañ a xaar guddi ga ca topp ak bëccëg ba ca topp waaye nag la gën moom mooy ni ma waxee bëccëgub salaata boobu nga toog ba fanaan guddik àllarba ga ca topp sànni itam bëccëgub àllarba ba ca topp loolaa gën léegi nag bëccëgub salaata ji bu fekkee yàkkamti nga ba mbir laa xaar guddik àllarba ak bëccigu àllarba kon balaa jant bee sox ci talaata ji dawal di gaaw génn mi nan ndax nee nañu boo fa yeexamtaloo ba jant ba soxee la fa moom faaw nga war a toog fanaan guddi googa sànni itam bëccëgub àllarba ja jàppal nag ne sànni jamra yooyu le mu mujj ci aj gi soo ba àggal da ngay dellu nag sab dal di waaj boo jekkee nag bu ñibbi rekk des ci nga dem wër kaaba ga wërut tàggoo bu dee ci yoonu Maalik wër boobu lu ñu sopp rekk la nga tàggu kaaba gi bala ngaa dem kon wërut tàggoo bi bu dee jigéen a te fekk mu gis deret daañu ko jéggal mu bañ koo xaar bu yàkkamtee dal ñibbi ndax moom wër bu ñu sopp rekk la mbokk mi kon nag leeral naa bu fekkee dangaa ngaa yéene aju kese ak bu fekkee da ngaa yéene yaar yëpp aj ak ci benn yoon nga xam ne neexoon naa bu dee ci yoonu Malick wi Serigne Touba toppaloo taalibe yi ñoom nee nañu yéene aju kese ba àggal moo leen gënal doonte sax boo noppee doo ca teg xumra teewul nag sopp nañ nga umra teg ca ndax nga am yaar yëpp ndax ne nañu moom moom rek nga am ndegam moom rek nga yéene ñoom nag nee nañu li tax ñu gënal ko mooy dañ na yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ifraad googu la defoon am na it ñu wax leneen ne leneen la defoon waaye ñoom daal ñoom waa Malik loolu la wax nee naa la nag kii yéene aju kese ak kii yéene aju ak yaar yëpp moom ñooy bokk jën jëf te mooy nii ma la ko waxee ba ni mu mate kenn rek moo ma dese mooy ki nga xam ne dafa def ak tamattu ak mooy yéene umra kese ba noppi ca walbatiku nag yéene aj ak tamattu baat bi day firi bànneexu te it moom la ndax xam nga boo xasee armal lii lay aay day bari te xam nga umra moom daa gàtt ndax nee naa la boo yéene rek wër kaaba dox safa ak marwa daal di jemp rek daal ngay noppi ci umra ga nga xam ne kon da ngay daal di mel ne nit ñi armalutoon aayatuñ la dara lu la neex def nag ba aj gi jege nga door a yéene aj teg ca loolu moo tax kon moom lu neex la bu dee kooku nag kon lii lay def kon moom bu àggee ca béréb ba nga xam ne ca lay armale waa ji tam na nga xam ne moom laa waxe woon ci ca ngaay laag julli gaag yépp ba sëlmal ci julli ga day wax ci xelam ne sunu boroom yéene na maa xumra sa néeg bii yàlla nag ma ko yombalal te nangul ma ko daldi wër kaaba dox sa ak marwa jàmp bu ko defee xumra ga noppi na mu toog nag ba nga xam ne léegi bisub taxaw arafa jege si na ni bisub juróom-ñetteel boobu yi dem minan mu daldi armal bu armalee aj nag day wéy rek daal di taxaw arafa dañ daan jëfee ci aj ga moom ñëpp ñoo ko bokkle li ñu wute rek mooy moom bu demee ba def tawaaful ifaada bu ko taxa yeewi ko daa war a jàll dox yi safa ak marwa ndax kat dox safa ak marwa ba mu njëkk na def umra gaa ko moomoon aj gii mu nekk defalagu ko dox safa ak marwa kon nag bu defee tawaaful ifaada ba àggal day dem nag doxi Safa ak Marwa te booba kat lay door a yooyu ko ci yooyu ko aaye woon ci ba mu armalee aj foofu rek lay door a yooyu ko mbokk mi nga jàpp foofu itam ne ifraad moom ku ko def mel adiyu du la war waaye nag ku def tamattu mbaa nga def xiraan te bokkoo ci ñu dëkk ca màkka mbaa la ko wër da nga war a def addiyu xëy na nag mu def tamatux ba noppi te addiyu du ko ca war ndax da am ay sart yoo xam ne bu ca dajee def nga mu def du tax war ko saa yoo déggee mu tudd rek nag addiyu xamal ne mooy la roj mbaa la rendi ci béréb yu tedd yooyee la ci kaw nag mooy gëléem nag topp ca xar topp ca bëy nag moo ci suuf moo ci bëgg a def nag am na ay matuwaay yoo xam ne boo ko laajee ña ko xam ñu tegtal la ko ba nga xam noo koy defe ndax léegi jamono ji daa soppi ko xëy na du rekk da ngay waaxu daal di fekk fi ñu koy jaayee nga daal di jënd kon nag mbokk mi waxal naa la jëfi aj gi na mu tegaloo ak loo mën di armal rek waxal naa la loo def la nga cay teg loo def la nga cay teg ba ba ngay noppi kon nag maa ngi ñëw ci wax yi nga xam ne ku xës armal ba kera nga yeewiku dañu la koy aaye te waxoon naa ne yeewiku ba ñaari yeewiku la bu ndaw ak bu mag bu ci nekk wax naa ko ci biir yooyu ñu aayee ku armal moo xam la armal moo xam xumra la armal am na ca loo xam ne su ko defee la mu armaloon day yàqu moo xam aj la moo xam xumra la am na ca loo xam ne la mu armaloon du yàqu waaye dañ koy teg fidyatu fidyatu mooy jotoo maanaam jot boppam ci loolee mu def te waru ko woon a def am ca loo xam ne nag moom bu ko defee itam du tax dara war ko ca waru ko def rek waye bu te la armalon bax te ken du ko ca tek dara bu defé mu ñu ko ayé won lo xamné joto jotoo war na ca kon joto kenn ci yett yi lay doon ben ba moy rendi ab gatt fu ko rendee rek mu bax bu ko nexé sax nek ba ñibbisi ñaarel ba moy wor ñetti fan ñetteel ba nag mooy juróom benn miskine kenn ku ne nga jox ko ab kilo yett yi lu ci def rek mu daal di nekk ak jotoo te mooy tànn bu ko ca soob kon naa njëkkee li nga xam ne dañu ko aaye ki armal te bu ko defee la mu armaloon yàqu loola mooy joteeg góor ak jigéen ci sawukaay ci coobare jote googu saa amee rek li dale ci waxtu wa ñu armale ba ñu ne day julli fukki ci weeru tabaski ci suba ga aj ga dal di yàqu ba tey bu ñu àggee ci bis boobee di fukki ci suba ga it su fekkee sànnee guñu jamray xaqaba defaguñu tawaaful ifaada ba tey bu ñu jotee rek aj gi yàqu bu ñu defoon kenn ci yooyu nag ni ki ñu sànni jamari aqaba ba noppi laata ñu def ifaada daal di jote kon moom du yàqu ba day sax bu fekkoon ne bisu fukkeel boobu jàll na defaguñu sax jamari aqaba defaguñu ba tey ifaada waaye bisu fukkeel ba moom jàll na kon buñ jotee itam du tax aj ga yàqu bu ñu waxee nag ne jote dañ jote yàqul aj ga cee war mooy bi nag mooy addiyu lay doon te waxan naa lan mooy addiyu li tax nag jote googu jara moytu bu baax a baax mooy su amee juróomi yëf da cay tase ba ci njëkk mooy biñ ko defee ci seen coobare daañ ci am bakkaar muy benn ñaareel ba mooy aj ga yàqu na ñetteel ba mooy bu yàqoo dutee da koy àggali waaye doon rek yàqoon da koy bàyyi ñeenteel ba mooy bu déwénee li war a ñëw fay si ko juróomeel ba mooy faaw addi yu war ca ndax ku yàq aj war a def addi yu wax naa benn ma teg ci nag kon ne góor day bu xasee armal daa war a bàyyi boppam muy boppub kese bàyyi kanamam muy kanamu kese bañ caa mbuur dara dara moo xam day lu ñu baaxoo muure bopp ak kanam ni ki baxana wala kaala wala leneen moom daal su mbuur kanam nga mbaa bopp ba di muuru ga fegal na ko tàngaay ba sedd rek daal di war a def jotoo gi ma la waxoon léegi bu dee jigéen ba tey yaar yi nga xam ne du awra ci moom muy kanam gi ak ay téngam dañ koy aaye mu muur ca dara kon téng yi moom bu ci solee ay gants mbaa mu laxaar ci dara wara a fay jotoo gii kanam gi nag am na jàpp ndal bu fekkee da ko muur waaye dëgëralu ko ci lu mel ni ping mbaa lu ni mel day it dolli suturas boppam rekk la ci jublu kon loola baax na dara du ko ca war nga teg ca dindi dara ci kawar walla dara ci ay we muy góor muy jigéen bu xasee amal ba keroog mu yeewiku du sañ yeewiku du sañ a watu bu ci defee lenn rek alamaan bii mu la waxoon dal di koy war te yi ñu la wax tey ko ak ñàkk koo tey ñoo yemoo ci war gee def jotoo googule waaye nag ka ko def ci lu dul ngànt fay ko day am bàkkaar boole ca nga teg ca diwoo loo xam ne juluwu ca lu may mu taxal rafetal aw yaramam rekk muy góor muy jigéen bu xasee armal bu sañ a diwoo loo xam ne juluwu ca lu may rafetale ko yaramam mu neex xet ak mu ñàkk neex xet ñoo ci yemoo waaye nag bu fekkee ne amul xet gu neex te da koy fajoo rek ni ki karité loola may nañ ko ko ba tey muy góor muy jigéen bu xasee armal day araam mu laal lat ko lañ bu jigéen li tax ma ne lat ko lañ bu jigéen bu dee ci yoonu Maalik dañuy teqale lat bu jigéen ak bu góor lat ko bu jigéen mooy bi nga xam ne boo ko laalee mu taq la bu baax a baax taxet ga am doole lool mel ni misk wala sanfaraan wala kaafoor kooku moom saa yu ko laalee war a fay jotoo gii ma la waxoon léegi laf ko lañ bu góor nag mooy bi nga xam ne boo ko laalee du la taq bu baax xet ga itam du am doole kooku moom dañ koo sib rekk waaye ku ko laal it dara du la ca war def nga rek loo xam ne bañ gaa def moo gën bi ci topp mooy sol ay bot su dee góor moom te am na yeneen dàll du sañ sol ay bag bu xasee armal ba kere mu yewe ko jigéen nag moom man na ko góor nag su fekkee bot yi kese la am dañ koy wax ne ko dang koy dakk ba nga xamee ne boo ko solee say dojar day feeñ bi ci topp mooy rëbb képp koo xam ne armal na muy góor muy jigéen day araam ci moom mu rey rab woo xam ne ci suuf si la dëkk bu dee rab woo xam ne ci ndox la dëkk moom mën na koo rey mën na koo rëbbu ni ki napp jën dana ko man moom la sunu boroom subhanahu wa taala di wax naa uxilla lakum saydul baxri wa taamuhu mataaxan lakum wa lissayaara wa xurima alaykum saydul barri ma dumtum xurumaa ci armal ba keramu yeewiku daal suñu të rey mbaa xoqatal mbaa wàññi ne ni rab woo xam ne yàllaa ko sàkk te mu dëkk ci suuf si ba tey nag su fekkee ne armalut na xam ne màkka ci boppam dafa am lu ñuy wooye xurum xurum mooy fa nga xam ne suñu faa rëbb suñu faa rey mbaa xoqatal mbaa xatal wenn rab boo xasee génn nag lay rëdd xurum ja nag fekk armaloo moom mën ngaa rëbb bu la soobee bu armalee ba noppi nag rey rab woowu nga xam ne aaye woon nañu ko mu rey ko dañuy seet su fekkee am na lu mu tollool mbaa lu mu lurool ci xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëléem ñu wax ko ne ko fayal loolee tolloog moom su fekkee amul lu mu tollool ñu seet loolee mu rey lan mooy xaymaam ci aw ñam mu joxe ñam woowee muy ak njotoom muy alamaanam ba tey bu ko soobee nag ñu peese ñam wa par ay liibar mu liibar ya toll mu woor bis yu toll noona waaye nag am na yoo xam ne moom bañuñu ku leen rey yooyu nag mooy janax ndax janax daa bari ak yàq ak jaan ak jiit ak li ñuy ak xaj boo xam ne day bawee ka màtt te nee nañu sax bu ñu nee xay bi booyee ko mat ndeg ment rek lañ jublu mooy wépp rab rek muy fàdd yooyu moom sayees na leen rey ca orom ja ak sax ci bitti orom ji na moytu nag bu baax a baax bi tax ya nga xam ne ñoo nekk ca xorom ja ndax moom dañ caa tege alamaan bu diis mooy mel bi tax moom ca lor rek ab gàtt la war a fay nga teg ca ab sëy ku xas armal ba keroog yeewiku bu dee góor du mën a maye soxna du ko mën a may soxna bu dee jigéen kenn du ko mën a may jëkkër waaye nag bu ñu ko defee itam taxul ñu teg ca benn alamaan jëmmi silbe ci boppam nag moom du baax donte sax góor gi nga xam ne mooy maye moom ci boppam armalut waaye jigéen ja muy maye moom daa armal mbaa góor ga muy may jabar moom daa aramal ko may nga moom du baax taxul nag ñu teg benn alamaan buñ cay wax la ma njëkkoon a tudd muy joteeg góor ak jigéen waxoon naa ne dana yàq aj dana yàq xumra waxan naa nag yan jamono lay yàq aj ga waaye waxuma woon yan jamono lay yàq xumra ga xumra moom jàppal ne ñetti ponk la am muy armal ak wër kaaba ak dox safa ak marwa kon nag li feeg muy dox safa ak wa jote googu bu fa amee daal yàq umra ga gannaaw bu doxee safa ak marwa nag nga xam ne wattu mbaa jemtu rek moo ca des mu dem def jote googee nag umra ga du yàq waaye ba tey addiyu moo koy war kon nag yii ma tudd mooy yi nga xam ne ku xës armal ba keramu yeewiku dañu ko koy aaye ma daal di jàll nag wàññi wari yi benn benn kon jàpp ko bu baax mën na maa jëkk a tudd armale ci miiqa miiqa mooy miiqaat fu nit bàyyi ko jëm ci màkk rek war aji mbaa bëgga bëgg a umra ji am na foo xam ne fa la war a armale foofee mu war a armale nag moo tudd miiqa wala nga ne miiqaat ci waxiinu arab bu dee waa Sénégal te ñuy jaari Madina kon dañuy bokk ak waa Madina fenn fu ñuy armale te mooy fa ñuy tudde Dul fa te bu yàgg te léegi ñu miine ko Abyaaru Ali jàppal nag ne kenn ku ne fa mu war armale waru koo weesu ba noppi nag door armal kon nag ku weesu fa mu waroon armale dal di armal dal nay bàyyi waru gar alamaan dal di koy war man nga caa teg wax ka gannaaw boo armalee jàppal ne saa yoo armalee toog yàgg ti waxoo ka rek alamaan dal lay war kon wax gi ka waru gar la nga xam bu fekkee waxoo ko benn benn benn yoon mbaa wax nga ko waaye danga koo yéexe gannaaw ba nga armalee alamaan daal di lay war mën nga caa teg wër kaaba bi ñu tuddee warub nuyoo te mooy tawaaful xudóom waxan naa kam war ca moom ak itam ne dañ caa war a susale dox safaak wa nga xam ne kon kam war bu fekkee defu ko mbaa susaliwu ca dox safaak wa alamaan dal di koy war mën nga caa teg ci bo topé yoonu malik dox gi nga xamné ne nga wara doxé ak sa tank bo dé wër kaaba gi ak bo dé dox ak marwa saa yoo ne ngant ba nopi wër kaaba mba nga dox ak marwa war mba ñu yanu la faaw nga wara fay alaman bu fekkee daa amee ngant nak mom dara du ko ci war fofu bok na ci yi wa malik wutek ñi ci dess ndax wa malik mom dañu diisal lol bañ ge dox ak tank ba wax ne sax bu fekke da wër kaaba ba mu dox safa ak marwa ci doxut ak tankam ci amul ngànt ci tam naa dox ak tankam kon faw li ñi ñibbegul rek na wat wër kaaba gaag dox ka safa ak marwa ci dox ak tankam man nga ca tek ñaari rakka yi nga xamni mom lañuy julli gannaaw bo kaaba fek wër ga war wër war moy warug nuyoo bi ma waxoon léegi ca kam war ak warug umra ak tawaaful ifaada yépp wër yu war lañu saa yow wëree benn ci wër yii war nga caa teg julli ñaari rakka yoo xam ne boo ko mënee jullee fa ñuy wax gannaaw maqaamu ibrahim foofa nga koy jullee su fekkee mënoo koo jullee foofa feneen foo ko jullee mu baax waaye moom du mën a ñàkk boo ko bàyyee rek bàyyi nga waru gar war a fay alamaan mën nga ca teg ne bu dee góora bu xësee armal daal dañu koy aaye lépp loo xam ne nañu ko ñawe mbaa nañu ko ràbbe mbaa nañu ko kole mën naa wër ak cër ak lu mën doon rekk doonte sax day ab jaaro akub montar bu dee góora du ko sañ bu dee jigéen nag moom sañ na ko waaye nag foofu ba tey waa Malick wóote nañ feek ña ca des am na ñoo xam ne nangu nañu takk ab jaaro nangu nañu takk ab montar loole ñoom aaye luñu ko waaye jàppale daal bu dee ci yoonu Maalik moom dañu koy aaye mën nga caa teg taxaw ga ñuy taxaw arafa ci njëkk jant bay so taxawaay boobee bu dee ci yoonu waa Maalik waru gar la ci ñoom ñoom taxawaay ba nga xam ne mooy farata nga xam ne su amul rek aj raw na la ba déwén nga fay si ko mooy gannaaw ba jant ba soyee la fa dale digganteem ak fajar lu néew néew nga taxaw ko arafa mbaa nga romb fa sax te yéene ca taxaw loola mënta ñàkk loolu lañ jàppe ñoom farata ak ponk nga xam ne bu la rawee aj raw na la ba déwén nga fay si ko waaye taxawaay ba ñuy taxaw njëkk jant bay so dañ koo boole ci wari gar yi nga xam ne soo ko bàyyee fay rek alamaan baa la waxan mën nga caa teg wàcc dañuy wàcc musdalifa ba ñu bàyyi ko arafa wàcc ga musdalifa waru gar la bu fekkee ba nga bàyyi ko arafa dangaa romb rek musdalifa jàll bàyyi nga waru gar gën nag mooy nga wàcc fanaan fa nan la ko waxe woon ca gannaaw waaye nag moom bu fekkee wàccoo sax bàyyi nga waru gar bokk na ca wari gar ya itam sànni gi ñuy sànni jamra yi waxan naa jamra yi nañ koy sànnee jamra bu ci ne rek waru gar la sa yo baye ben kep rek dal di wara fay alaman bokku na ci gar itam fanaan nga ñuy fanaan guddi yooyee ma waxan ca minan ràññeeloon naa yari guddi ya waxal na la ne la boo mënee def yetti guddi ak yetti bëccëg gi moy gën waye nak jappal ne yari guddi ya mom fanan ko fa mën ta warugar waru gar la bokku baye wara fay alaman bi te itam sax bu guddi gi da nga ñew ba la ëpp ci guddi ga jàll nga door ñëw dañuy jàpp ne fanaanoo fa nga war a fay alamaan boobu yi nga xam ne nag la wari gar la soo ko bàyyee aj gi di yàqu alamaan rek ngay fay te alamaan ba teeloon na maa wax lu muy doon ndax saa yu ma ko tuddee nga xam ko bul ne rek bu ma ko bàyyee du tee saa aj baax kon nag dama koy bàyyi te def alamaan bi ndax alamaan yomb na ma déedéet loolu kat na nga ci bu baax a baax a baax ndax yépp lu lay jox tuyaaba tax la am gëremul yàlla rek waroo koo sàggane ci sa coobare bu demee ba rëkki la nga jéglu ko ko rek waaye man koo def ba noppi nag bañ koo def moom ëpp naa def mu leeral foofu nag ne sànni jamra yi moom bu fekkee da nga koo tële daañu la may nga wuutal ku la sànnil waaye du tee nag alamaan bi moom war la li wuutale ci amul ngant ak ki am ngànt rekk mooy te bàyyi sànni jamra yi te amul ngànt day am bakkaar waaye ci wàllu alamaan bi moom ki am ngànt ba tax mu wuutal ku ko sànni lit du tee mu fay alamaan bi ba tey bokk na ci wari gar yi watu bu dee góor day watu mbaa jemp waaye watu gaa gën watu googu nag su ko bàyyee bàyyi na warugar bu dee jigéen nag moom day jemp waaye du watu nel bu set moom sañu ko watu ba tey bokk na ci warugar yi bisu fukkeel ba na sànni jamray àqaba ba noppi doora wër tawaaful ifaada doora watu waaye su fekkee dafa def tawaaful ifaada ba àggal te fekk sànneegul jamray àqaba kon addiyu dana ko war bu watoo itam te sànneegul jamray àqaba li wax fityatu njotoo gaa waxoon dal di koy war ndax day na nekkoon kon watu na te fekk yéeyu koo gutoon su defee nag tawaaful ifaada watu xam def na yaar yépp nag te fekk sànnee gutoon jamray aqaba kon yaar yi ma waxoon yépp koy war mooy addiyu ak fidyatu kon nag wari gar yaa ngoog wàññi naa leen benn benn manees na koo jàpp bu baax képp koo xam ne yaa nga foofa nag te mën a fexe bay am ndoxum zam kon na nga ko baril di naan foo nekk sax rek ci goxi adduna bi te mën a am ndoxum zam-zam na nga ko fonk bu baax a baax di ko bari la naan ndax addis yi nga xam ne moom ngay bëgg a dégg mu waxal la ko am na xadisu jaabir radiallahu anhu maa u zam li maa shuriba la ndoxum sam-sam ko naani rek mu fajal la loola lu tax nga naan ko rek loola nga cay am rawahu ahmad fi musnadihi wa ibnu maja wal bayhaqi fi sunan wa ibnu abi shaybata fi musnadihi batay wa an ibni habbash qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma'u zamzam lima shuriba lah fa in sharibtahu tastashfi fihi shafaka allah wa in sharibtahu mustahidan كهذاك الله وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل هزمة تدون ها أجزاي تمويق أنام جبريل مويق تانكم نخم زمزم مومو بل قال في الجامع الصغير صحيح رواه الدار قطني walxaakim fi mustadrakihi hadis boobu daa wax ne ndoxum sam-sam loo ko naane rek mu fajal la loola boo ko naanee ndax bëgg yàlla saafara la yàlla saafara la boo ko naanee ndax bëgg yàlla musal yàlla musal la boo ko naanee ndax bëgg yàlla tàggali la aw mar yàlla tàggali la ak aw mar soo ko naanee ngir bëgg tàggu tàggoo xiif maanaam bëgg a regg yàlla reggal la جلوات ننشي جابر ماء زمزم لما شرب له من شربه لمرض شفاه الله أو الجوع أشبعه الله أو لحاجة قضاها الله قال في الجامع الزغير حسن أجل جابر بوبو من يرنت بنينا نخم سمسم دال لوك ناني رك مفيتي فوفو فجل لولا بوك ناني انجر توت يالا فج توجه بوك ناني انجر خيف yàlla reggal la boo ko naanee ngir aajo yàlla faj aajo ja te boo dee xool ci aljaamihu saxiir da caa wax ne addis boobu darajay xasan la ame kon nag addis yi nga dégg yëpp benn ñu ne saxiix mbaa ñu ne xasan kon addis yi mata jàpp lañu kon nag waxtaan waa ngoog mel na ne daal lépp lu yitteel ajkat bi mbaa ki umra waxtaane nañu ko bu baax xanaa rek nu ñaax sunu mbokk yu jigéen ñi nga xam dañuy dem foofa te buñ fa nekkee di jéem a sàmmoonteeg colug lislaam di jéem a sàmmoonteeg teggina lislaam di sàmmoonteeg julli juróom ñu farlu ci buñ ñibbisee itam rek noone ñu nekki woon foofa ñu far ko wéyee la des ca seenu dund ndax li metti moom mooy bakkan noppalu ba àggal nga bëgg koo sonal mbaa mu sonn noppalu nga bëgg caa tegaat beneen coono waaye boobee ñu bàyyi ca coono ba rek bu ñu wéyee ca noonu rek moom dañu koy daal di tàmm te du metti moom daal nañ jéem rekk bu ñu nekkee foofa nañuy sàmmoonteeg la lislaam bëgg bu ñibbisee itam jéem a ca noonu rek la leen dese ci dund su ko yàlla mayee mu dem madina itam na sant bu baax a baax di farlu ci julle ci jàkka yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tax yonenti bi newon salatun fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa al masjid al harama wa salatun fi al masjid al harami afdalu min mi'ati alf salatin fi ma siwahu rawahu muslim illa qawluhu ila al masjid al harama waa rawaa aljumlata al axirata ahmad wa ibnu xibbaan fi saxiixihi yonent bi nee na sama jàkk ji julli ci genn julli képp moo gën julli junni julli ci geneen jàkk ba des nag al masjid al xaraam moom rek la sama jàkk ji gënewut noona mu teg na jullee ci jàkk yi kaaba ga nag moom moo gën téeméeri junni julli ci geneen ju bokkut ak moom kon nag bu nekkee màkk farlu ci jullee ci jàkkay kaaba ga bu nekkee madina farlu ci di jullee ci jàkka yonante ba sallallahu alayhi wa alihi na woon kat maa bayna bayti wa alayhi la ba tey ñëw na ci addis man salla fi masjidi arbaina salaatan laa tafuutuhu salaatun كتب له براءة من النار وبراءة من الحذاب وبراءة من النفاق نيون تبنينا كجل يجي سما جاك جي نين فكي جلي يتيغا لونغا خمنا جن راو لبا نين فكي مات يالا بندل لا شدويت تي سوارا شدويت تي مبوغل شدويت تي اك نافق ويودا سودي بغا بوغجا جاكجا نجيتل تانكم دي جورم ni ñu ko soppee ci mboolem jeneen jàkk ju muy dugg su dee génn nag njëkke génne tànkub càmmoñam buy dugg nag na wax bismillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahumma axfir lii dunubi waftax lii abwaaba rahmatik su mënewul ñaan gi noonu na wax bismillahi rek julli ci yonante bi na mu mëne teg ca ca làmmiñ wa mu nàmp ne yàlla yàlla nag ma jéggal saay bàkkaar yàlla nag ma ubbil sa bunti yërmande daal di julli ñaari rakka bu ko ëppee itam baax na daal di jàll nag siyaara yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su ma nee loolee ñuy wax naa assalaamu alayka ya rasulallah assalaamu alayka ya nabiyallah assalaamu alayka ya xiirata xalqillah assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuh أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبد الله ورسوله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذرياتك وسلم تسليما كثيرا لولو باخنا تفك fekkee وحديتم ko وحرك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته yonante bi nuyu naa la seere naa ne yàlla rek kay buuru waaye yow mii moo la yónni te lépp lim la yónni jot li nga ko taxaw nga taxawaay bu mat sëkk ba yàlla gërëm la yal na yàlla dolli xéewal ak teraanga ak mucc ak jàmm dolli ko say mbokk yi la gëmoon ak say soxna ak képp ku soqi ko ci yow ak sa xeetu yépp su ko defee mu dandutu ci wetu ndeyjoor ga daal nuyu abu bakar radiallahu anhu su ko mënee wax assalaamu alayka ya aba bakrin siddiq safiya rasulillah wa saaxibahu fi lgaar جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا لولا باخنا سكو مول نمونه سما سانغ بي ابو بكر مونا لا يو داي ياي سوبك يوننتي بي يا اند نك موم يين ñaar kep ci xunti ba yalla ñettel leen yal na la yàlla fay ngën ji tey ci taxawaay bi nga taxaw ci xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su ko defee mu dandutu ci wetu ndeyjooram daal di nuyu Omar radiyallahu anhu mën na ko ne assalaamu alayka ya Omarul Faruq wa rahmatullahi wa barakaatuh jazakallahu an ummati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xayran bu fekkee mën na loolu baax na su ko mën mu ne suñu sang Omar nuyu naa la yal na la yàlla fay ngën ji fay ci taxawaay nga taxaw ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su ko defee nag su nekkee Madina na farlu ci siyaare béréb yu tedd yooyee rawante na masjidu Quba ndax jàkkay xubaa wax ne ni yonent bi daana fa dem di ko siyaare moom jàkka jooju di fa julli ay saxaabaam it ci gannaawam daanañ ko def ñëw na ci hadis man tatahara fi baytihi wa ahsana tuhura tuma ata masjida qubain laa yuridu illa salaata fiihi kaana ka ajri umratin koo xam ne waaj nga laab na nga war a laabe ci sa kër daldi di dem wuti jàkkay xubaa te dem jullee fa rekk moo yëkkati kon yàlla bindal la tuyaabay umra rawaahu ahmad wa nasaa'iyu wa bnu maaja wal xaakim wa qaala saxiixul isnaad kon nag na ba dem ci jàkkay Quba julli fa ñaari rakka ndax nee nañu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi daana fa dem léeg mu war léeg-léeg mu dox tànkam bu demee julli fa ñaari rakka te addis boobu wér na ndax muslim moo ko nettali na farlu tam ci siyaare bàmmeel li ña nga xam ne ñoo deexoon ci jihaad foofee ca Uhud ak itam sax jàkkaarloog a muy jàkkaarloog doju uhud rek xéewal la ndax yonente bi waxan na ci doju uhud woowu ne uhudun jabalun yuhibbuna wa aw daj la woo xam ne danoo sopp nu sopp ko te addis boobu muttafaqun alayhi la maanaam buxaari yi ak muslim maase nañ ci ba tey nee nañ waxoon na ne uhudun jabalun min jibalil janna wadd taraba مرة تحت رجليه صلى الله عليه وآله وسلم وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان فقال له اسكن أحده وضربه برجله فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان حديث بوبو بخاري صلونكو yonent bi ne uhud day aw doj la bu bokk ci doj yi àjjana mas na أك yéeg abou ak omar ak ousmane mel ni doj wi dafa xaw a yëngatu baj baji ci ron ay tànkam yonent bi da ko dóor tànkam ne ko waaye ji dalal neel tekk ndax man mi di ab yonante ak Abu Bakar mi siddiq ak ñaari gaay yi nga xam ne ku ci nekk shahid lay doon te mooy Omar ak Ousmane ñun kat noo nekk ci sa kaw kon nag waa ji dalal ba tey itam na dem siyaare armeel yi baqi ndax yonante bi daana fa dem di leen siyaare di leen nuyu di leen ñaanal xam nga ni baqi yi moom ñu bare bare ci ay sahaba ay junni junni ci ay sahaba ak ñu topp ci sahaba ak gaay baax rek ñoo fa nekk bu fa àggee mën naa wax assalaamu alaykum ahla diyaari min almuminina walmuslimina antum saabiquun wa inna insha allahu bikum laaxiquun يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم suma ne ñaan googu baax na su ko mënut ñaan gu mu ñaan rek baax na bu ko neexee itam mu wax ci làmmiñ wa mu nàmp ne yéen waa armée li baqiha maa ngi leen di nuyu da ngeen moo jiitu rek waaye noo ngi topp ci yéen ña fa jiitu ci yéen ak ña mujj ci yéen ñëpp yal na leen yàlla dolli yërmaande noo ngi ñaanal sunu bopp jàmm di leen ko ñaanal yal na nu ko yàlla boole ci àdduna ak alaaxira sunu boroom yal na nga nu jéggal te jéggal leen ñoom ñii yal na nga nu yërëm te yërëm leen ñoom ñi yàlla boo xañ tuyaabay siyaare leen ñaanal leen yàlla boo nu fitnaal tam mukk ci seen gannaaw moo ngi sàkku nag képp koo xam ne rek déglu nga kaset bi lo ci jariñu mu mu néew néew nga bañ no fatte ci ñaan fo man di di dinu ñaanal gën ji di dinu ñaanal gën ji di dinu ñaanal gën ji mujj rafet dinu ñaanal lepp lo xamne yalla da ko awale ci sëriñ bi ci xéewal ak tawfiq ci aduna ak alakhirah mu ëppale ca ñaanaale ko itam bokki julit yi ak bokki talib yépp وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين